aousubillahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki àdduna mbokki sénégambien ñi ngi leen di nuy bu baax di leen jaar Serigne Cheikh Tidiane Niass euh, la marabout de Ousmane Sonko euh, yéen a ngi ñëw tey fii ci Léona Niassène kër Maam xalifa ñas di nuyu en passage waa Sénégal yi di nuyu seen njiit Tacko TV DFG TV di nuyu mboolem site yi nga xam ne euh, ñëw nañ waaye amuñ accès yegsi ci kër gi ndax xat-xatu gàmm geeg yu mel noonu euh, fa tabarakallah ñu ngi leen seen kër di leen wax bisimilah ñu waxtaanee li réew mi yëpp di xaar ci ñun bisimilah. donc euh, nga nga nekk si njabootu kaw nag kër maam Khalifa Niass lew na Niassène fi laa gàmmoo te fi laay fi laay mas di gàmmoo ba keroog may sàngo suuf ndax fi xalifa maam xalifa ñas tëdd fi la maam xalifa ñas tëdd kon fi la xalifa maam xalifa ñas nekk may set ci maam xalifa ñas fa tabaarakallaahu maa ngi gàmmoo Kaolack lew nañu seen kër maam xalifa ñas hmm. nan nga gisee le fait que Ahmed Khalifa Niass gàmmoowul léegi Kaolack jël gàmmoom yóbbu ko fee ca ñàgg yow ban gis-gis nga ci am. ah am na ci droit parce que doomu xalifa Niass la euh, bokk na ci rang ñu war a toog Khalifa général de Euh, du ko ñaanal fanu gudd ak wér comme ni ñu koy ñaanalee xalif bu fi toog euh, dafa am loo xam ne nag vraiment du du du waxtaan bu nit di mën a comprendre ci ci télé ak ci écran yu mel noonu waaye kilifa la te ku am cër ci yàlla la te doomu xalifa ñes la euh, gàmm nag dafa dafa tasaaroo fu waay nekk mën nga koo def turu gàmm rek mooy màggal yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa boo toogoon salaal sax mën nga di jàng allahumma salli ala sayyidina wa sallim maam di julli ci moom rek di ko màggal terewul yool ba day ñëw ci comme man bu ko centré defee ko ñàgg mook defee ko lew nañu seen ñooyam rek parce que li li ci ëpp importance rek mooy fépp fu ñu mën di tànt ay woyu woy juróom maanaam ay zikkar yoo xam ne way juróom xasida yoo xam ne moo ko tagg yonte yàlla Muhammad ak Sidi Ahmed Tidiane sëriñam ba moom lañ fay jàng moom la ñuy jàng fii ci lew nañu seen kon yool bi am fii mooy am foofa rek noonu lañ ko gisee ñu euh, dañ la dem sa ba tuddee li nga xam ne moom mooy marabout de Sonko donc Sonko aussi ñëwoon na fi seet si ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa diine yi ci dëkk bi nan nga gisee ñëwoon fii ci Gambie. waaw ñëw na fii ci Léona Niassène hmm, comme ni mu ñëwee ci yeneen kër yëpp bég ci loolu ànd ak kontante bi ci njëkk mooy euh, njabootu El Hadj Abdoulaye Niass bu ma ne njabootu El Hadj Abdoulaye Niass nag bàyyiwuma Léona Niassène bàyyiwuma Medina bàyyiwuma ba attaquer ma jebel sax ña fa nekk. di njabootu El Hadj Abdoulaye Niass nañ am fayda ci seen bopp président bii fi toog respecté wut njabootu El Hadj Abdoulaye Niass il faut buñ xasal buñ waxante wut dëgg ñu jaayante buñ jaayante wut ñu waxante dëgg gàmmu mësul am président de la république taal ay otoom wala mu yebal premier ministre am wala mu yebal ministre de l'intérieur ñu jógee fa la ñëw ci gàmmu gi mësul am gàmmu cinq jours avant lu ne mën nga koo def wër kër yëpp donte am na foo xam ne mënoo faa ñàkk a dem ñu nangul la ko lool mais war nga respecter d'abord ngusura El Hadj Abdoulaye Niass du ziyaare Léona Niassène président bu benn président wala benn premier ministre wala ministre bu am njëriñ boo xam ne nañ nañ ko yebal Léona Niassène mu dem ca ziyaare amul benn benn président wala ministre de l'intérieur wala premier ministre boo xam ne nañ nañ ko yebal Medina mu dem ca gàmmu ga amul. te mbooleem mboolem cérémonie yi nga xam ne nii dafay am dañ leen fiy gis te Sénégal mënoo fii mënoo lim génn ci njabootu El Hadj Abdoulaye Niass mënul nekk. ndax boo ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass international la buñ ne gàmm mu neex ak mu naqadi international ku koy def fii ci Sénégal mënoo cee génne Mawlana Cheikh Ibrahima moom rek moo am ay taalibe yoo xam ne dañuy jógee international di ñëw di gàmm si moo xam Niger moo xam Nigéria ba Amérique ba nga fa nga xam ne nii maanaam mooy première première euh, pays di puissance du monde xawma lañ koy waxee ay seeni doom dañ fay jógee yor ay nationalité américain ñëw fii nii di gàmm si fii nii état du Sénégal amul benn reconnaître bu mu def maanaam waa kër El Hadj Abdoulaye Niass loolu nag mbéjum kanam la borom moo koy fajal boppam faj bopp faj fajal bopp gi mooy opposition bi liñ def loolu lañ doon xaar ci état du Sénégal soxlawuñ seeni dërëm mais nit kenn du ko xeebal ñettam yi kenn du ko xeebal bésam kenn du ko xeebal euh, ab ab sëriñam waaye it kenn du ko xeebal ab soxlaam suñ soxla nag dëgg-dëgg mooy guddig rasulillahi gi gis nañ nag seen taxawaay ñoom opposition bi ñu ngi leen ci sant di leen gërëm Baye Mbaye Baye Mbaye lu mu Baye Mbaye mu wax. dafa dafa ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ba pare ne bu nekkee moom mu ngi fi Macky Sall dootul gagné li nga xam ne moom mooy élection foofu ci kàlla waaye yemu fa dafa clash ki nga xam ne aussi moom mooy maire wax loolu dafa sedd maanaam li mu wax dafa dafa tuuti daal lu ñu doon xaar ci li mu wax dafa sedd maanaam doon nañ xaar sax wax ju gën a métti loolu ju gën a tàng loolu. déggoo li ma wax moom li mu wax dafa sedd kon yow maanaam wax ji wax ji bu bu fekkee fekkee dégaru tàngoor bi 90 la jëlal sama wax ji man yóbbu ko yóbbu ko 1000 pour cent ne maanaam moom li mu wax dafa sedd quoi ci ci askanu Kaolack parce que man sax damaa jëlale maire Kaolack kooku ak mais ci maanaam doxalinu état fii ci osra kër El Hadj Abdoulaye Niass dañ ñoo yeb ba fa yeb em fa lañ ñu ko yor ñoo moom suñuy kurus xanaa nit du fekk nit fa mu toog ne sa kurus bi doon ma far force ñaan ma yàlla du fekk fam fa nga toog ñu la jël sa carte dem voter ma par force ñun ñoo moom suñuy course ñoo moom suñuy carte te Baye may li mu wax lool ba ma ko waxee kañ la man yàgg naa wax ne Macky Sall perte na Kaolack na fa xëpp ay milliards ñaata milliardaire ñoo fi nekk ñaata millionnaire ñoo fi nekk ñoo xam ne nii dañu rejoindre APR dañu rejoindre état du Sénégal ci seen liggéey yu mel noonu waaye pourquoi mënuñoo gagné Kaolack kon moom moo war a xoolaat boppam ak ñu fi teg lu tax ñu fi teg pourquoi pas respecté wuñ sëriñ si lu tax respecté wuñ taalibe yi lu tax respecté wuñ peuple mooy lan mooy dañoo dem ba def seen bopp comme comme ne ñoom ñoom ñoom moom réew mi wala ñoom moom dëkk bi loolu duñ ko may kenn baa mbay li mu wax ay campagne al Ousmane Sonko loolu dafa ndaw moom na li mu soxla rek bu boobaa moom bu buñ ca yeggee na ne na na ne moom 100 millions la laaj maam na wax li mu soxla rek sababul fayda bu ñu defee ba pare mbooleem koo xam ne incha allah bi xawla waqti bu ca taxawee pour ñu campagne Ousmane Sonko comme moom daf ñu see fekk si ba pare sax dèjà daf ñu see fekk si ñun ñi ay doomam ba pare parce que nag dëgg-dëgg fekk say doom ñu ne ci lenn nga ñëw ba max leen ca loola dañuy gën a bëgg gën am courage xam ne am na ñu leen dimbali ci loola. gouvernement bu defee ci gàmmu pourquoi pas ñu toog ne def na ci gàmmu dara wala defu ci gàmmu dara defu fi dara lum fi def. Ah, déedéet gisuma lu fi def man Cheikh Niass d'abord gisuma ko bokk d'abord lu mu fi def fii ci gàmm gi lan la amul gisuma lu mu fi def amul lum fi def courant bi dëkkee bestation boo xam ne kenn xamul ko. mënoo dégg sax micro yi li ñuy wax sabotage yoo xam ne kenn xamu ko yebaloo sa benn gouvernement bu jógee fenn ñëw ne nañ dem rejoindre Kaolack wala nañ leen rejoindre Nangam ah léem ni lew nañu seen di gàmm léem ni Medina Baye di gàmm amul kenn koo yebal sa sa état dafa loolu loolu loolu dafa ñaaw ah dem di taxaw taxawaay yoo xam ne nii maanaam dafa am lu muy loo xam ne dafa dafa du débat du yàqal la sax mais dafa am lu muy nduru yabeel googu lañ wax ne na jeex yebal ci ay ndawam ñu ñëw fee ca Medina Baye yaakaaroon ne lépp benn la. déedéet lépp du benn déggoo fi may waxee Yewwi Askan Wi bu leen neexoon yebal seen ndaw am na ñu leen toogal fii defuñ ko dañoo yëgle ne ñun am nañ yëg-yëgu ñu yëgle ñu ne bisu yontu yàlla ma sallallahu alayhi wasallam bi mooy bis bu ñu gën a fonk ñun bis boobu ku ñu ko fonk la ñu fonk la soxlawuñu ay milliards yu ñu xipp déjà am nañu ay taalib yu defar yu gi ba pare ñoo xam ne benn taalib rek ba soxla woon cent millions léegi ñu compté ko jox la extra extra kon soxla wuñ xaalis boobu parce que ñoom avant ñu nekk nguur ñi ngi gàmm mais bu ñu nekkee nguur laa wax gàmm cinq jours la juróomi fan avant gàmm ni yeewi askan bi def wër kër kër diine fu nekk ñu am fa image fu ne ñu dem fa respecté leen ñoom loolu lañ doon xaar ci état laa wax mosu gàmm musul am état du Sénégal am premier ministre wala ministre de l'intérieur boo xam ne ni ñëw na gàmm yaa ngi dégg ngir lan ngir ngir ngir ñëw ci biir tant boo wala ñëw ci cérémonie officielle boo xam ne respecté nañ ñu loolu mosul bu amee nañ ma dévier wax ma ko respect boobu nag respect boobu nag laa wax ne nañ ko delloo Ousseyn Alaaji lay Niass parce que fii Sénégal buñ ne gàmmu bari na fi de waaye Alaaji Alaaji Abdoulaye Niass moo njëkk a gàmmu fii Sénégal topp leen taarix Alaaji Abdoulaye Niass moo njëkk a gàmmu fii Sénégal ba mu ko defee ba pare nag wax ne mooy jàmm ji lii la waxoon keroog bi njëkkee gàmm ba pare def ne gàmmu leen ndax mooy jàmm ji kon Alaaji Abdoulaye Niass moom njëkk a gàmm fii Sénégal doomam yi tasaaroo tasaaroo ci àdduna bi ku mel ni maam xalifa Niass ku mel ma noona Cheikh Ibrahima ñaar ñooñu rek doy nañ ci doomu El Hadj Abdoulaye Niass lañ waaye ñaar ñooñu ndax jotut buñ fuñ tàntal rasulillahi état du Sénégal yebal fa délégation boo xam ne buñ ñëwee danañ xam ne ñii respecté nañ postura El Hadj Abdoulaye Niass loolu mais ministres yi ñuy yebal waxuñ ne ministres yooyu soxlawuñ ko waaye maanaam seen président seen seen représenté ci kër El Hadj Abdoulaye Niass ñun waa kër El Hadj Abdoulaye Niass soxla nañ ko respect bi soxla nañ ñu ko waaye li tax nag may wax waxu njañu taalibe yi la waaye man état ñëw fi ak mu bañ fay ñëw sama fuu sama yoon ñëw ci man kenn kese laa soxla mu ñëw fi te bu fi ñëw ñëwam doy na mooy Ousmane Sonko.